na communiqué leeral joxuwuñu weddiwuñu defuñu dara pare bëgg jàpp ay nit noot leen daa mën a ne man bu ma la tuumaalee boo may porter plainte da ngay weddi xanaa plainte bi kay da ngay bind ne man li ma la xal du dëgg mais soo demee rek daan ne procureur kii daf maa tuumaal yam foofu da koy classé sans suite parce que da wax li man lii mën a tuumaal dëgg la wala du dëgg état bi bu communiqué woon pare jàpp journaliste yi yóbbu bu dee li journaliste yi wax du dëgg dañ leen di téye mais communiqué wul léegi bu bu procureur bu bi mu leen jàppaloo pare lan la leen di laaj su leen laajee lii ngeen bindu dañ naan ko dëgg la fii lañ ko jëlee kan moo ko démentir procureur du moom mooy démentir euh, gendarme gendarmerie duñ démentir démentir moom cellules yi nekk ci ministère yi ñoo koy def wala président ci bopp wala nag ñi nekk ci biir pale ba kenn démentirul léegi nag xel day daal di tey te français yi nag euh, informé nañ xam nañ euh, général Kandé mooy kan war nañ ko décorer tey jii. japp naa ne même bu génnoon ci ci armée sénégalaise sax ragal naa ne ñoom mën nañ ko jëlaat yónnee ko def ko missionnaire mu leen di doxal ay mission wala di di def de sécurité parce que ku ko xam-xam te du mag noonu. Mhm. cinquante et quelques nag kooku wax dëgg yàlla man jàpp naa ne armée soxla na la ba léegi ci ci ci ci affaire sécurité ak réew yi ak réew mam pétrole am gaz ñu gis wëyu yi ñu ni ñu jatoo nii jàkkaarloog Sénégal te réew mu ko am rek. en général yeneen lobby yi dañuy ñëw pour bëgg a sa réew boo leen ko joxul te am na ñeneen ñu ko jox ñu koy exploité te am na ñuy contesté ne ñooñu waruñu leen ko jox yooyu yëpp am moo tax ñu war a leeral rek sénégalais yi moom amuñu problème day leer. bu dee leer rek nga jubook ñoom. mais bu lëndëmee mais du ngeen jubóo affaire leeru la léegi nag honoré bi ko Macron honoré mm-hmm. lu rafet la mérito na lu ko ëpp de. Mm-hmm. lu ko ëpp la mérito. Mm-hmm. ko ëpp la mérito ba muy nekk colonel. man colonel Kandé sax laa xamul ci turam jiite Tamba la commencé woon ñëw Casamance di fa def liggéey ba mu solo ba ni mu nekkee général. yow de fa nga dëkk. colonel man colonel laa ko xamoon turu colonel biñ biñ ne biñ ko defee général sax naa yëguma ko colonel Kandé rek laa daan wax man même bu ma daan wax dama maa ngi jaajëfal colonel Kandé parce que liggéey bi muy def foofu. Mm-hmm. man damay jël moto jóge Casamance dugg Guinée Bissau jaar ci biir àll bi fërëri ak moto doo gis colonel sa bët bi suuf a ngi ci. te bu njëkkoon kenn xel xel xalaatu ko oto yi sax dañ la naan jiital caravane ki militaires yi jiitu oto yi bu dee période tabaski sax moo daan gën a raw moom barakaas yi mel ni tulleeg màlle léegi période tabaski nii la oto yi def va et di def lu la neex heure bu la neex ngay dox ah, bii si dañuy dox ba ay deux bi ah jam ci jamonoy Macky Sall bokk bii si dañuy daw ba deux heures du matin trois heures du matin di daw ci biir àll bi doo gis ko ne la sa bët bi am na suuf kan moo ko indi jaa njàmbaaram la kooku kay même bu ko Sénégal defalul loolu waxuma la mais xaar leen sax États-Unis sax man nañ ko décorer de parce que liggéey bu mu def foofu dafa rëy ñun ñii doog dugg àll boobu nag di fa dem di fay doxantu xam nañ parce que moom devise am dane dafa bëggoon Casamance mel Almadi c'est-à-dire que bu ma Almadi mooy fu la neex jaar xam nga Almadi amul ngay dox guddi ñu naan la kii ay agresseur rek bandit la. ah ne ne ko nee na loolu moom jaar ak bu fa xam bu fa weddee ci dara ak njaga njaay <laughs> nee na moom defi sa loolu loolu la bugg ci xolam mooy foofu moom day mel ne almadi yi nga xam ne fu la heure bu la neex dox lu la neex jaar waaw waaw doo jéggi miin doo jéggi bomb kenn du la kar jigéen ñi mën a dem taxani kenn du leen kidnappé kenn du sàcc seen bëy yi moo tax di set base yi fa newoon yépp mu rajaxe lépp fu mu rajaxe rek samp fa benn campement militaire maanaam du day rajaxe baas bi bàyyi ko noonu bu ko rajaxee installé fa ay goneem continuer léegi baas yi fi ñu doon occupé ñoom militaires yi ko occupé loolu koy sant la woon ak ngërëm kon kooku dafa mérité ñu décorer ko ak fu ñu ko mën di affecté mérité na décoration mérité na sénégalais yëpp jóg màggal ko toojal ko wuyu yi nag du leen neex ak jaaykatu yàmbaay yi parce que toolu ya xam naa ñooñu rek ñoo koy xeex mais jàpp naa ne nit ñu normal ñi moom dinañ kontaan ci général Kandé lii ñu ko nommé boo nekkee jaaykatu yàmmaaraan do ci sawar sa économie fi mi jóge ah kiko yak mom moom du ngeen juboo. alors Leila moment bi est-ce que c'était le moment propice. mais man je man je vais devenir euh, journaliste et te reposer la question. Mhm. pourquoi tu trouves que est-ce que c'est pas le moment c'est pas le bon moment. moment moment bi nga xamné ne euh, fan passé indi won na coow ci ci ci ci réew mi ñu naan wax na dem ak du dem bras de fer am ci ci ci nit yi ba ñu ci ñaar journaliste euh, xam nga tubaab gisoo man ni ma mënee xuloo xam nga tubaab dafa mën xuloo tubaaba mën xuloo français mën xuloo dalay caw di la ci fay te dara du yëngu ngay dagg sa yàpp yaram te yow booy wax da ngay wax di ya yaa sànni nañ fi benn pic ñëw ne la sénégalais joomaay pic boobu rek la sànni non Sénégal xoolal Sénégal di wàcc opposition pouvoir ñëpp di naaw ne lu tax muy def loolu suñu président. pourtant ba ñuy saaga fi Macron di ko xas di ko yekk xeteme di taxawal ay group France dégage frappe ñëw. France xaw ma la yow am wax nga ko ne ma ne nga ma yow Sénégal la yow am baax boo xam ne wala du yow daf mit du yow de am na ku ne woon ma que ni Sénégal am nañ baax boo xam ne ñun mën nañoo dóor suñu doom mën nañoo dóor waaye keneen du laal. waaw loolu dañ ko baax. waaw non dama ne la mais dama ne la ñoom it bu ñu wéetee gore. Mhm. wéet gore wéetali ko gore. toog bàyyi leen ngeen yekk seen président ku ne sa président moo la neex. ngeen yekk seeni président xeteme ñu gis boobu yamaate ci yéen ñu gis ngeen bàyyi sagarub tubaab